waxtu toppaltan fanweer yi simili mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak seen kóolute xibaaru marax yi ak lu ca gën a fës Malick Gakou du bokk ci jongante palum njiitu réew bi nu jàpp ñaar fi fan ak ñeent weeru février atum 2019 moom jiital grand parti conseil constitutionnel de ko tëye bokk na ci la ko waral di ñu ko laajoon ci ay signature mu aju ci parrainage bi ne ñu da koo matlewu teeyo jamono moom Idrissa Seck ak maître Madické Niang matle nañu ba jàll ci lu jëm ci wàllum parrainage bi Chérif Dia Euh, moo ñu teewaloon ca conseil constitutionnel beneen ponk mbokk yi euh, muy Assane Diouf bàyyi nañu ko tey jii ci suba bàyyi gi ñu ko bàyyi nag ak anam yenu ko bàyyee euh, neexul ak ay awakaam ku ci mel ne maître Ciré Clédor Ly dellu siwaat na ci dogal bi yoon jël tere ko moom Assane Diouf mu daal di bàyyi nag lépp lu jëm ci ay communication ak lu ni mel ñu ne sax mbir mi daañu ko xoolaat keneen itam ku nu bàyyi di Ousseynou Diop bàyyi waaye néggandiku la am atum 2015 bu leen fàttalikoo la ñu ko téye woon ci kàddu yu mu yëkkati woon ci réseaux sociaux yi mel ni Facebook euh, di wax ca la xewoon ca Charlie Hebdo bokk na ca la ñu kaa tuumaaloon di terrorisme teneen ponk itam mu aju ci tijjite cours et tribunaux yi tey ji ci Ndakaaru magistrat yi yëkkati kaddu na nag léeg-léeg ñu joxar bi leen baaraamu tuuma ci lu mu deful njiitu réew bu Sénégal moo teewe woon bi ndaje Mame Birame Diouf itam euh, wuute ci wàllum tàggat yaram ak euh, CAN 2019 Coupe d'Afrique des Nations daanu ko amal ci réewum Égypte euh, tey ji ci suba lañ jël ndogal bi ci euh, Ndakaaru waa CAF ñoo doon amal am ndaje mbokk yi ponk yàggoog ngeen taxir lu ma ñëw léegi ñu faram fàccee aywa rafetlu seen ànd ak seen coluté ci télévision Futur Média xibaaru marax yi dañ koy doore ak Malick Gakou mi dul bokk euh, ci jongante palub njiitu réew bi nu jàpp ñaar fukki fan ak ñeent weeru février atum 2019 bi nu nekk njiital grand parti conseil constitutionnel lañu ko tëyee tey jii ci suba lu jëm nag ci wàllum parrainage yi ñu ko doon laaj ak signature ñu ne da ko matlewut Malick Gakou nag fi mu ne nii mbetteel la àndal ñu teewlu kàddu yi mu ngi ko dénk Cheikh Diak Amadou Ba xam nga ne tey jii dama ñëwoon conseil constitutionnel ginnaaw bi mu ne ma naa déposé huit mille huit cent quatre vingt huit parrains ginnaaw bi ma andee quarante mille parrains te dama koy déposé ñu ne ma deet mënoo koo déposé kon nag lañ ma wax laa fa déposé tey jii donc wax nañ ma ne ma manqué na ma as tuut maanaam cinquante trois mille et quelques yi nga xam ne nii moom laa war a am. amuma ko ñu ngi ma calculeel cinquante deux mille neuf cent onze kon nag bu ñu jëlee charte conseil constitutionnel ci parrainage bi mën naa wax ne kon ñun dañuy invalider suñu parrainage eh, may wax ne loolu eh, ndoonte sax war nañoo métti métti wuñu ndax ñun dañoo politique pour liggéey Sénégal waaye ginnaaw loolu aussi conseil constitutionnel wax ne ma. ne juróom benn région validé nañ ko non fukk ak benn région validé nañ ko maanaam onze régions yoo xam ne nii suñu coalition am na fa plus de deux mille signatures te xam ngeen ne juróom-ñaari région rek lañ doon laajte kon nag loolu li muy firndaal mooy yéen sénégalais yi jàppale ngeen ma taxawu ngeen ma ànd ngeen nag man ci lii nga xam ne nii moom laa leen proposé woon muy plan alternatif suqali Sénégal ay aywa ku ci mel ne maître ba dikka ñang moom ak Idrissa Seck jàll nañu du jëm ci wàllum parrainage boobu lee euh, ñoom ñaari candidat yi bokk ci ña fas yéene samp seen dënd wala bokk ñi am yéene euh, samp seen dënd laaj réew mi jongante palu njiitu réew atum 2019 bi euh, dañuy dem rek fekk yi ku ci mel ni Macky Sall Khalifa Sall Karim Wade Ousmane Sonko ak professeur Issa Sall bu PUR ñu des ba tey ci xibaar yi ak forum civil ak itam euh, kuréel gi ñu dippee fipp ñoom nag daal gisuñu benn njariñ wala solo ci génn bi nga xam ne juróom-ñaar ñi bokk ci société civile bi génn nañ ko taseek taskatu xibaar yi ku ci mel ni Birahim Seck wala Boubacar Camara la ñu xam le rek mooy euh, ñoom ñooñu bokk ci société civile bi waroon nañoo xam daal mbir mi euh, na muy tëddee laata ñu ci soobu Pape Fara ñi ngi Pape Sangone Mbaye juróom-ñaari nit ñu taboon ci société civile bi ñu boole leen ci conseil constitutionnel ñuy saytu lii di signataires yi jàpp nañ ne am na ay erreur yu bëree bëri waaye li nu mel dafa mel ni jaan dem ba pare ngay topp ci watit wi di dóor ndax gannaaw ba ñu éliminer ñaar fukki candidat ci ñaar fukk ak juróom-ñaar loolu di xalaatu coordonnateur bu forum civil ak président bu mouvement fippu maanaam ci li nga constaté loo xam ne lu lu doy waar la maanaam ci wàllu ñi nga xam ne ci wàllu logiciel ci wàllu référentiel ñi nga xam ne ñoo ko war a am amuñu ko yoo nga constaté loolu baaxul nga bàyyi également ci loolu ba fi nekk nii tax na porte nañ tort porte nañ préjudice ay candidat à la candidature ci li nga xam ne jaarul yoon. ñoom dañ leen jëloon rek pour euh, teg leen foofu rek pour bu ñu paree ñu ne waaw ñëpp fekkee nañ ko ñii faruñu fenn ànd nañ ci loolu nag yàqu na mun nag bu ñu buggee jàmm nañu recommence contrôle bi. bu ñu sukkandikoo ci candidat bi nga xam ne dañ ko rëkkale ak Birahim Seck jàpp nañ ñi nga xam ne ñoo fa teewal société civile bi danoo waroon a mbir mi naka la demee laataa ñu ciy dugg. bu ñu dugal ci dara wax dëgg yàlla war nga laajte. ne ko waa man yaa ngoy dugal ci contrôle bi lan laa bëgg def lan laa war a def contrôle bi naka nga koy defee ñu vérifier ndax contrôle bi ni ñu koy defee dëppoo ak yoon ba pare nga contrôler nga waxtaan ak euh, société bi nga def tuuru parti yëpp danaan ñun de dañu désigner pour ñu contrôler waaye lii li ñu def lii ak lii est-ce que lii ànd ngeen ci. bi ñu demee ba constaté ne euh, logiciel bi bi ñu utilisé xamuñ ci dara euh, données de base yi ñoom amuñu ko te ñeneen également mooy candidat la amuñu ko dañ la waroon wax ne stop ci fan yii njëkk yile manquement nag faaw mu indi ay conséquence ci processus électoral bi. conclusion yi moom benn conclusion la benn conclusion mooy reprendre contrôle bi. waaw bu ñu ko deful benn benn candidat du accepter ñu koy ñu koy éliminer ci ci ci ñàkk fayda yi. forme civile di demandé mooy parce que justice quand même dafay jaadu ñi nga xam ne dañ leen lésé ci loo xam ne jaarul yoon bu ñu xoolaatul seen dossier dañ xoolaat seen dossier pour pour pour xool ndax réellement. Euh, euh, euh, ak données yoo xam ne société civile am nañ ko ñu mën leen dugalaat ci dugalaat ci course bi. teewaayu société civile ci processus bu vérification ci wàllu parrainage bi loolu ñu bëri ànduñ ci acteurs yi jàpp nañ dafa mel ni médecin après la mort. aywa ñu des ba tey ak waa forum civil bi sàkku rek nag euh, ci euh, askan wi rawatina njiit yi ñu ànd ak dal ndax dañoo nekk ci jamono joo xam ne dafa jiitu campagne bi te léeg-léeg mu ànd ak jafe-jafe ngir moytu lu ni mel ci gis-gisu Birahim Seck itam Aly Ngouille Ndiaye Euh, des ko war election élection yi nu ko denk maanaam ñu amal koog lu ni mel ñu jëlee ko ci ay loxoom jox ko keneen Birahim Seck la ñuy teewlu euh, kàddu yeeg Pape Faxa ñi nga saa Sangone Mbaye ci wàllu organisation élection ñun forum civil depuis le 9 octobre 2018 dañ ne le président de la République na choisir benn na jël benn personne benn nit koo xam ne wala benn organe boo xam ne moom mooy organiser élection yi naam nekkul euh, Aliou Ndiaye moo ñu déranger déedéet mais. en tant que ministre de l'intérieur li mu taxaw wax devant Sénégalais yi daal ne moom dina fexe ba candidat am gagné loolu moom mooy déranger forum civil parce que mbiru élection la nit ki koy ki organisé dafa war a tëddee njaaxaanaay waaye mënoo nekk juge mënoo àtte ba pare nekk nekk juge loolu moo tax forum civil sur le principe daal ne le public war na mën a euh, choisir une personnalité neutre wala boog un organe bu organisé bu organisé élection yi aywa ni ngeen koy xoon ci bopp xibaar yi Assane Diouf bàyyi nañ ko mu dellu ci ak euh, njabootam bàyyi gënu ko bàyyi nag wala bokk anam yenu ko bàyyee neexul dara ñay koy layool bokk na ci maître Ciré Clédor Ly euh, mu dellu siwaat nag ci dogal bi yoon jël tere ko moom euh, Assane Diouf mu bàyyi génn bi mu daan génn ci média yi ak lu ni mel bu leen fàttali ko tëdd na at ak ñaari weer ci kaso bi Aminata Mbaare Sow yabuma la nag xam naa ne kilifa nga mais xoolal saaga dama lay alerter rek. fukki weer ñeent biñ ko tëjee ak léegi Assane Diouf ñu daal di koy libéré waaye libération boobule kii di avocat am jàpp na ne dañ koo bëgg a rey daal di tëj gémminam daanaka dañ koo rey def ko néew ndax tere nañ ko mu fekk ay ndaje tere nañ ko mu wax rajo tere nañ ko mu wax télévision tere nañ ko mu feeñ télévision tere nañ ko mu feeñ ndaje kon boog tere nañ ko mu wax xalaatam. même ci li nga xam ne que ci réew mi la ak li nga xam ne que noonu la réew mi di doxe bu weesoo tere gi ñu tere Assane Diouf mu wax ci rajo wala télévision wala sax ci yenn réseaux sociaux yi juge bi nee na tamit nañ ko yóbbu hôpital ndaxte jàpp na ne Assane Diouf xel bi daa des. dañu nekk d' abord dañuy dañ ko jéem a toroxal pour wane que ne maanaam warul ndax dañ nekk ne dem seeti docteur te yoon dafa nekk koo xam ne warul. yoon amul sañ-sañu ko daan ko. Assane Diouf nag sénégalais la bi nga xam ni moo nekkoon États-Unis di fa dundu ci mujjantal ga ñu daal di koy indi fii ci Sénégal ci novembre 2017 ba léegi nag mu ngi nekkoon ci loxo loxoy yoon liñ ko doon toppee mooy saaga yi mu doon yëkkati ko ci ñenn ñi waaye tamit yenn information yu mu doon joxe ci ñenn ñi nekk fii ci réew mi ñu jàppale loole lépp dara nekku ci woon dëgg tey ji nag libéré nañ ko waaye libération boobu nag dañ neena tëj gémminam bu mu wax ca rajo bu mu wax ca tele bu mu wax sax ci réseau sociaux yi le lu ko mooy dañ ko delloowaat ci prison Aminata Mbaari Sow keneen tey tam ku fanaan ci njabootam tey di Ousseynou Diop Ousseynou Diop bu leen fàttali ndongo la bu nu jàppoon atum 2015 ba tey euh, moom nag jox nañ ko bàyyib neggandiku ndax lañ ko daa lañ ko doon tuumaal ne ñu lu jëm ci wàllum terorisme bu leen fàttali ko la xewoon ci Charlie Hebdo ak itam ëttu tas xibaar yu nu duggoon boom leen moom kàddu yu mu yëkkati woon ay jege ñaaleem ne kàddu yu njuumte la waaye la koy jiñ euh, du ca dara lu ci mën a am parquet euh, ñetti ati kaso ñaar fukki fan ak ñaar ci bi ñu nekk la lépp di leer laata loolu ñu teewloo ki koy euh, layool euh, maître Mamadou Seck lay wuyoo ba tey ak Aminata Mbaare Sow ak Thierno Laurent Mendy. Ousseynou Diop dañ ko doon topp pour ne dafa dafa kañ dafa kontaan si attentat yi amoon Charlie Hebdo bi mu amee France. mais dañ ko doon topp sa affaire ñu dem ba si xam ne amu si ñu dindi lépp ne ko la dañ lay topp parce que da nga da kañ danga nga tagg ku def attentat. tëdd na trois ans ñun ñun dañuy yaakaar ne dañ ko libéré. dañu yaakaar dañ ko libéré même bu ñu koy condamné bu ñu ko ne peine boobu tëdd ko ba pare waaw te loolu xam nga tooñ la bu dee dañ ko libéré peine bi mu tëdd ah, bu génnee ñun dañ xool ni ñuy def Prodac Sénégal parce que loolu mu ngi fi commencé bëri ñu téye la at yu bëri après libéré la xam loolu aussi dafa métti. aywa ñu des ci xibaar yi wax ci leneen muy tijji teg cours et tribunaux te ji ci suba lañ ko doon amal euh, fii ci Ndakaaru magistrat yi nag euh, wax nañ la ñu la leen métti ci seen xol ne ñu léeg-léeg ñu joxar bi leen baaraamu tuuma ci lu ñu deful wala sax loo xam ne yëgunu ko euh, du ñu ci yi dañuy teewlu nga xam ne daal mooy président Macky ndax mu teew woon ndaje moom i dénk maam Birame Diouf ak Dia Faraba. L'œuvre de justice est hélas une tâche délicate. complet euh, jamono yi nag li nga xam ne moom moo soxal wàllu yoon ci mim réew daal dinay tàggatem bi lool ndax euh, saa su nekk rek euh, mu am loo xamante ni rek daal nañ ko ci àddu wanne yéen nga xam ne yéenay liggéey ci wàllu wi saa su nekk yéen a ngi ci bay seen waar loolu lépp nag maa ngi ciy teg sama bët di xool waaye rek itam ma leen di xamal ne nguur bu Sénégal jamono yi taxaw na temb ngir daal di ciy jël ay matuwaay bu baax a baax ngir rek daal di défendre magistrat yi nga xam ne rek ñoom ñoo nekk ci mim réew. L'État n'attendra pas que passe à nouveau pour réagir. Force restera à la loi. aywa ñu des ba tey ci ndaje moomu mooy rentrée des cours de tribunaux lañ ko gën a xamee euh, tey jii ci suba nag ponk wala tomb bi nu taamu woon ngir waxtaanee ko mooy lu aju ci aar loolu tubaab naan donné personnelles ñu ne itam euh, kàddu yi bokk na ci ka ko yëkkati di tijjite gi di euh, Ousmane Gueye nekk nag conseiller daal ca cour d'appel bu nekk fii ci biir réew mi ca diwaanub Saloum dañ ci ànd ak Mame Birame Diouf ak xibaar yi nga xam dafa soxal doomu aadama bi ak yi nga xam ni sax dina nekk sax ci net bi loole nag jëfandikoo ko ba nañu koy amee dafa laaj kon ñu respecté vie privée am kon nit ki war a ko jël am yàq gu mu jublu ndax it teg ko ci yoon dina rek tax kon lépp loo xam ne nii lu ñu ciy soxla la ci wàllu koom ak it kaaraange yokk ci biir réew mi mun a it antu fichier électoral bi nga xamante nit euh, mettre nañ ko en ligne dina tax électeur bi ku ci nekk nga mën a saytu say mbir waaye itam mu doon loo xamante ne ci kaaraange la waaye ñu teg ko ci lu leer. ces données de masse communément appelées big data. big data nag boo ko déggee mooy donné yu bëri yoo xamante nit dajale na ay sources yu bëri te wuute ci ay application yoo xamante ni tëral nañ ko ci wàllum domaine bu nekk li mel ni science marketing transport santé éducation muy njàng beeg njàngale bi waaye tamit loolee tax na lii di données yi ñu dajale ba enregistré ko eh, dina tax tamit mu gën a nekk ci kaaraange eh, qualité bi nag fañ ko denc maanaam wóor na nit ki nag am nga droit modifier ko ba sax nga dindi ko anam ba mu la soobee eh, waaye tamit ci temps yoo xamante ne dina tax suñu koom gën a mën a yokk loolee tax na tamit ñu samp ab centre boo xamante ne ci wàllum calcul la fële ci diwaanu Diamniadio. centre national de calcul scientifique de Diamniadio. yeesal loi 2008 bi nga xam ni nag jëm na ci protéger données à caractère caa soppi ngir it mu méngoog li nga xam ne nii yenn ci ay fitna ak i jëf yu ñaaw yoo xam ni kon am na ñu koy def di teg rek lu ñaaw ay doomu aadama bokk na ci lii di cyber criminalité loolu it dina ci jaar rek ñu jox kon ay matuwaay yu mat sëkk commission bi nga xam ni moo koy saytu. état yi ci seen boppam it dañu war a jël bileeg mbir mu doon it seen gànnaay ndax. doon na loo xamante ni lu ñu soxal waa Nations Unies ñoom teg nañ bépp de teg nañ dispositif sécuritaire bi nga xamante ne ñeel na données yile ak cérémonie rentrée solennelle cour des tribunaux bi ñu amal nag ñu gis ne am na kàddu yu bëri yu ñu fi yëkkati jëm nag ci gën a jàngal nit ñi tàggat leen waaye it gën leen a sensibiliser ci lépp loo xam ni rek ñeel na ñu xam seeni droit waaye it ñu mun leen kaa aaral li mu waree. Mame Birame Diouf euh, jërëjëf ñu wax itam ci euh, lu jëm ci wàllum kaaraange gi rek euh, fii ci réew mi nag am na ñoo xam ne ña ngi koy yëngu di ci amal ay ndaje yu am solo te ji ci suba nag amoon na ndaje muñ ci amal bokk na ci lu ñu bëgg rek jàppale nguur gi ñu indi saafara rawatina lu jëm ci wàllum kaaraange gi colonel Mamadou Samb ak Aïssatou Gueye Ba programme bi li mu visé mooy progressivement jox sunuy état du état du Sénégal rek mais yeneen état francophone jox leen ay experts ñoo xam ne tàggat nañ leen ba ñu am xarañ bu leen may ñu proposer ay solution ci problème mu sécurité yi am bu ñu former ay experts pour que ñuy traiter les question de sécurité c'est fondamentalement pour pour état yi la. voilà maintenant aussi secteur privé am na ay ay enjeux boppam sécurité am na aussi ay soucis sécuritaires boppam. Euh, stage bi ñu leen di def loo dana leen tàggat ci yooyu yëpp ba nga xam ne ñi jóge secteur privé mën nañoo euh, jariñ seen société ci wàllu sécurité. aywa ñu dem ba diwaanu Ziguinchor wax ci délégation générale à l'entrepreneuriat rapide moom nag euh, jël na koppar yoo xam ne daal ëpp na benn milliard jagleel ko waa Ziguinchor la ñu bëgg rek mooy projet yi nga xam ne soxna yi ak ndaw yi am nañ ko ca diwaan ba ñu jàppale leen ay setu pay Yaya Diallo lu toll nag ci benn milliard jël nañ ko jagleel ko région bu Ziguinchor ngir rek nag jàppale leen ngir jigéen ñi ndaw ñi mën taxawal seen ay projet ñi def li ni mel nag mooy délégation générale à l'entrepreneuriat rapide. Euh, tey valide nañu lu toll 87 projets pour montant de 306 millions de francs CFA loolu ñu dollu si 89 millions yu ñu validé woon Dakar le 6 août pour euh, une enveloppe de 89 millions euh, boo boolee loolu yëpp dina toll si 176 millions de francs CFA pour ay projets structurants wàllum agriculture élevage pêche euh, transport ak tourisme bu région Ziguinchor et en plus de cela am nañu lu ñuy wax enveloppe autonomisation économique pour les femmes et les jeunes maanaam jàppale jigéen ñi ak ndaw ñi si ay financement yoo xamante ne dem na si 10 000 francs ba 500 000 CFA et loolu région Ziguinchor bénéficié wu na lu toll 759 millions de francs CFA loolu boo ko boolee région bi bénéficié wu na lu toll un milliard deux cent millions de francs CFA et département bu nekk am na si wàll. ba tax nag gouverneur Ziguinchor bi ne lii nag wokkatu bu dajeeg gestu la muy woo ñëpp nag ngir ñu taxaw temm ngir bokk ci projet yi la. ñu sant yàlla parce que euh, départ bi enveloppe bi moo ngi toll woon ci sept cent millions ñu yokku ko yokku ko ba mu nekk un milliard deux cent millions fi ñu toll nii te yaakaar naa dina ko ëpp parce que comme ni ma ko waxee jigéen yi na ñu leen. te gis nañu ñoom ñoo fi ëpp plus de 70 pour cent jigéen yi la ñoo am ci financement bi jeunes yi nag 23 pour cent 25 pour cent la mais dañ leen di ñax ndaw yi jeunes yi surtout ñu génn taxaw takku defar ay projet ñëw ci DER bi ñu financé leen ñu mën a liggéey. jigéen yi nag xam ñoom li baax si ñoom ki nga xamante ne mooy coordinatrice bu réseau COSEC bokk ci bénéficiaires yi. ci nag li nga xamante ne mooy xaalis bi biñ ko jagleel moom dina mën a taxawal benn usine glace. bëgg a def projet euh, kii kii de glace usine de glace moo tax ñu bind suñu projet DER appuyé ñi ndax DER gis nañu li ñuy liggéey ndax monsieur le gouverneur mun nañ wax ne moom ak baaxaayam ak yëpp moo ñu gën a ngemb ndax demoon nañu ba xaw a ragal. di jox jigéen ñi xaalis ñu naan du ñu fay mais fu mu toll nii car macha allah jigéen ñi Casamance teg nañ ko ci raay bi. si diiru nag fukki weer lu toll ci fukki milliards ñu jël ko jagleel ko góor ñi jigéen ñi ngir ñu mën a taxawal seen ay entreprise ngir jàppale leen te accompagner leen ci seen i projet mu mel ne nag délégation général à l'entrepreneuriat rapide mi ngi wëyal li nga xamante ne moo ko tax a jóg. aywa ñu wax ci euh, télévision Futur Média ak euh, aw li nga xamante ne si mooy leeral award 2018 lii nag mooy gulet euh, bi nu ko defee rek xayma yi la mu wane moom mooy télévision Futur Média di télé bi askanu Sénégal taamu ci réew mi maanaam moom daal moo ne ca bopp ba bu nu sukkandikoo ci ñu amal li ni mel fii nag ci makkaanu télévision Futur Média fi lañ doon ci raay bi ci teewaayu Ibrahima Kane la woon ak Youssou Barou Télé Futurs Médias ñu ne ko waat ngàcce ngalaama seetu askan bi comme ñu koy duppee dal di jël raaya leeral awards 2018 mu di ab raaya gu bees boo xamante ne nag ñaax la ko directeur des programmes am jàppee. satisfaction pour man en tant que directeur des programmes pour directeur télé bi pour directeur général directeur président directeur général directeur commercial tous les directeurs qui sont ci kër gi même ak ak yeneen support yi pour wax que ni aussi li euh, source euh, de motivation la. leeral awards 2018 di ab initiative boo xam ne nag site d'information bii di leeral point ñoo ko amal édition bu njëkk bi lu war a tolloog juróomi junni internaute ñoo ci voté. waa leeral ci seen bopp ñoom ñoo toog waxtaanee seen biir daal ne dañ bëgg jël benn initiative bu bees. daal di koy bokk ak askan wi yëpp ndax du ñun ñooy tànn comme ni ñu ko waxee askan bi ñoom ñoo tànn ba tax ñu waxtaanee ko daal di def benn vote dugal ko sur le net nit ñi tànnal seen bopp muy ci wàllu tele ci wàllu animateur ci wàllu acteur ci wàllu lépp daal. ñu gis na nag TFM la gaa yi tànn moo tax ñu indil ko raaya bi. nekk liider yomb na wante nag wéy di ko doon moo ëpp solo te lu ni mel TFM umpule wu ko benn yoon. suñu position de leader ñu ngi ci taxaw ba léegi donc euh, am nañu ay échéances yu am solo yu ñëw muy présidentielle bi nga xam ne ci ay ay fan yu néew la war a am Sénégal euh, ñuy ñaan aussi taxaw si taxawaay bu rafet bu neutre bu digne de la du groupe parce que ñun aussi dañu nekk groupe boo xam ne dañuy. on est juste on essaye d'être juste teg lépp ci yoon ñëpp gis ci seen bopp ndax moom mooy seetu Sénégal donc ñu ñaan jàmm mais aussi lii wane ni euh, euh, internautes yi parce que internet léegi am na doole ñu ngi ñuy bàyyi xel donc lépp lu ñu mën a def. pour ñaax liggéeykat yi nekk ci kër gi ak techniciens yi ak réalisateurs yi ak présentateurs yi ak journalistes yeeg yëpp que vraiment ñu redoubler d'effort pour que événement yi nga xam ne dafay ñëw ci at bi ñu couvrir ko ki nu mu gën a rafetee. Télé Futurs jël nag raw gàddu gi ci télévision yi nekk ci Sénégal gi yëpp ci atum 2018 mu di ab classement boo xam ne TFM moom rek la bëgg di jël saay su ne. Ibrahima Kane ñu wax ci wàllum tàggat yaram ak CAN 2019 bi am ca réewum Égypte xibaar bi nag tey jii lañu ko joxe ki ko joxe di ki jiite kaf euh, di Ahmed Amat moom nag dellu siwaat na ci mbir moomee tey jii ci Ndakaaru la woon doomu Égypte yi rafetlu li ni mel Mamadou Ndiaye lañ ci àndal. léegi leer na coupe d'Afrique bu 2019 ñu ngi ko fas yéene amale fële ca Égypte beneen coupe d'Afrique bi nga xamante ni ñu ko fas yéene amal ci weeru juin bi ñu jëm Égypte moo ko fas yéene organisé. ñii di égyptiens yi ñuy teewe woon réunion comité exécutif bu confédération africaine bu football ñoom mbégte la ñu am ci li ñu tabb Égypte mu fas yéene amal li nga xamante ni mooy coupe d'Afrique des nations ci atum 2019. gannaaw bi kaf nangoo organisation Coupe d'Afrique bi ci Cameroun bi nga xam ni moo ko waroon organiser ci atum 2019 ndaxte ay yéexteel gi ñu seetlu ci ay infrastructures sportives léegi nag leer na Égypte moo fas yéene amal ndaje footballu Afrique ñu ngi ko fas yéene amal ci weeru juin bii ñu jëm. je suis très très euh, lool ci xibaar bi Égypte mi war a organiser Coupe d'Afrique 2019 mu nekkoon xibaar bu égyptien yëpp doon xaar dinañ def nag suñu képp talaay kattan ngir feer bi gën a neex. mu nekk ndaje bu mag. décision boobu nag ñi ngi ko jëlee tey jii fii ci ndakaar fi nga xamante ni moo nekk capitalu football fii ci Afrique ndaxte tey ci ngoon ci lañ fas yéenee xam kan moo nekk ballon d'or bu Afrique ci diggante Sadio Mané Mohamed Salah ak kii di Pierre-Emerick Aubameyang ci kanam tuuti daañu xam ballon d'or africain diggante Sadio Mané la Mohamed Salah ak euh, Pierre-Emerick Aubameyang mbokk yi mu ngoog fi la ñuy yem ci xibaar yi Sara Cissé noppi na dégtal leen ko ci français di leen ñaanal fanaanum jàmm di ko sàkku ci yéen